vidéo de waxoon ne nag maa ngi ñëwaat waxoon naa ne Ousmane Sonko biñ ko jàppee du ci réew mi seetaan gi ëpp na jamono jii ci Sénégal nekk fi sëriñ gàcce la nekk sëriñ gàcce la ci jamono jii ñu toll ñi ngi seetaan réew mi nit ñaa ngi xiif nit ñaa ngi mar nit ñaa ngi dee ñu bàyyi Macky Sall muy def lu ko neex di not Ousmane Sonko xam nga lii noteel la woo nañ la yaa ngi ñëw ñu gàllankoor la ci yoon wi jàpp la yóbbu la daldi lay leneen lii feek usmaan sonk ñi ngi ko jàpp réew mi du am duñ am jàmm Macky Sall Macky Sall li des ci sa nguur gi bu fekkee ne di too gannaaw billaahi lasi laa ilaaha illaa huwa doo am jàmm parce que kenn du teg jàmm yàlla yi fitna ba pare de am jàmm doo am jàmm ba illaa yomi diin te nga gàcceel nga réew mi tas nga yaakaari réew mi soppeeku nga beew nga yow ak ñi nga àndat mbiru banditisme yi nga xam ne yaa ngi koy def ci réew mi di not nit ñi di tëj nit ñi di rey nit ñi billahi du la jikk sëriñ benn waxut nag taalib yi sonn nañ militaires yi sonn nañ population yi sonn nañ kenn talatul dara ndax nguur gu bon rek ak bew ak yàq ak sonnal population bi lii nag man maa ko wax feek ñi ngi téye Ousmane sonk te man faralum Ousmane Sonko du sama leader maa ngi koy wax waaye damay wax ngir population ak li nga xam ne man damaa yaru ci diina ji war a nekkal lislaam waaye am naa gàcci torop torop torop torop torop ci lislaam bi tey ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee chefs religieux yi ak seen noppi te réew bu amul jàmm naka ngay jaamoo yàlla naka ngay jaamoo yàlla doo mën a jàmm nit dafay gëm ñun ñëpp jàpp nañ kilifa diine yi mag ñi fi nekkoon bañ lu bon moo taxoon ñu nekkoon ci liñ nekk maa ngi wax ñëpp nag ni noppi gi du jur jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu